إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله فصل اللهم وسلم وبارك عليه وآله الطيبين وصحبه الهداة الميامين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم ولا تكونوا من الذين يضيعون أعمارهم سدى أيها السباب أنتم مقبلون على الإجازة وهذه أوقات فارغة ولكنها أيام محسوبة عليكم الوقت إما أن يكون لكم وإما أن يكون عليكم فعليكم باستغلال الأوقات فيما ينفعكم عند الله سبحانه وتعالى والوقت هو الحياة وهو مزرعة الآخرة فليعمل الإنسان وليجتهد وليستثمر هذا الوقت والإفادة منه فيما ينفع في طلب العلم النافع وفي طاعة الله من الصلاة والذكر وتلاوة القرآن ومذاكرة العلم وحضور الدرس والمجالس العلمية والتدرب على المهن معينة في هذه الحياة المهن التدرب على المهن المعينة في هذه الحياة وخدمة المجتمع والبيئة التي يعيش فيه والتعرف على الأقارب وصلة الأرحام بدلاً من صرفها فيما لا ينفعكم في دينكم أو دنياكم وينبغي للشباب في هذه الاوقات ان يختاروا الرفقه الصالحه التي تعينهم على طاعه الله وان يتجنبوا رفقاء السوء يا ايها الصبيان لا تشتغلوا عن الهدى وبالعلوم اشتغلوا فاستغلوا بالحفظ والتلاوه واجتنبوا مجالس الشقاوه فكثير من الشباب بعد الإجازة ينحرف سلوكهم بسبب رفقاء السوء ابتعد أيها الشاب عن هؤلاء الذين يضيعون أوقاتهم وعليك أن تستثمر هذا الوقت وأنت في قوة الشباب وفي صحة الذهن وعافية البدن وكثرة الفراغ استثمرها في العبادة وال... في العلم والعبادة وصلة الرحم وزيارة المرضى ومساعدة الضعفاء والمحتاجين والتدرب على المهن التي يحتاج إليها المجتمع والبيئة الاقتصادية بوكي جلجي جناو بني سنت يالا نوغي دل دي جلجي رنتبي صلى الله عليه وسلم دي توبا البرمبي بي ساكون جيكلم دي كون موسخل نوتي نجوبم di leen ndokkeel itam ci xew-xew bu mag bi ñu génn te mooy tabaski gi di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu nangul nu te may nu nu fekkewaat ko at yu bari te ànd ak wér te xéewal yi dolliku te njub gi dolliku mbokk yi ginnaaw bi ñu dénkee sunu bopp ak ragal yàlla ñoo ngi leen koy dénk di ñaan borom bi mu bañ noo boole ci ñi nga xam ne dañuy dund gi dañuy sànk seen àdduna mu mel ni tey tomb bi ñu bëgg waxtaanee moo di ne réew mi ak réew yu bari sax dañuy dëgmal li ñuy wax vacances te loolu mooy ndaw ñi nga xam ne ñëpp wax nañ ne ñoo ëpp ci sunu réew ñi ciy jàng waxtu woowu dañuy bër dootuñu jàng mbokk yi nag loolu li muy tekki mooy waxtu woo xam ne dafa vide ay weer yoo xam ne dañ la bàyyi ci sa sago li la tënkoon te mooy njàng mi tënkatu la waaye nag bokk yi vacances buñ koy wax itam nañu xam ne ci dund gi la bokk de dañ koy limaale boo ko sànkee sànk nga sa dund moo tax ñu ne waxtu benn mu jariñ la walla mu lor la moo tax nag ab jullit dëgg-dëgg day war fexe ba waxtu yam yépp mu di ko jariñoo mu di ko jariñoo ndax waxtu mooy dund gi te mooy li ngay baye la ngay góob àllaaxira kon nit ki na góor góorgóorlu bu baax farlu ba waxtoom mu di ko ni muy xalaate sakkanal alalam ba man ban caa jariñu nay sakkanal waxtoom di ko def ci lu am njariñ ba mu jariñ ko tey ci àdduna ak àllaaxira jariñ ko kon ndaw ñi ñu ngi dëgmal vacances ñàkkul ne am na ci ñoo xam ne seen diine dese naa mat nañ ko jeexal ci lu mel noonu fexe xam seen diine balaa vacances bee jeex ku ci ferutoon ijji nga fer ijji ku ci xamutoon say farata nga xam ko waaye itam góor góorlu ci tàggat sa bopp ci jaamu yàlla di tudd yàlla jàng alxuraan ak xasaayit di teewe jotaayi xam-xam yi fexe itam ba lu mu néew néew nga jël ay bind yoo xam ne ci sa diine la lay doon ñi nga xam ne itam ay ndaw lañ nañu góorgóorlu tàggat seen bopp ci ay métier yu leen di amal njëriñ ci seen àdduna nañ góorgóorlu itam ci vacances bi ba def lu société bi ak milliers bi ñu nekk bu laajee setal bu laajee ay tabax yu ñuy ànd def ko ci quartier ak nit ñi ne ndaw am na mi na ko waa dëkk bi yëg ne ndaw ñi dañoo nekk ci vacances moo tax fenn taqatut moo tax gis nañu ne lépp loo xam nañ fu ñu war a bay la bu nawet bi ñëwee ña ngi koy bay waaye lépp loo xam ne itam fu ñu war a setal la ña ngi koy setal nañu fexe ba nit ñi yëg ne daal ndaw ñi ñu ngi ci vacances waaye lëjaluñ ñu ci mbedd yi waaye ñu ngi nuy jariñ ci quartier bi ci gox bi waaye nag bokk yi ginnaaw waajur yi nañu xam ne ñu ëpp ci njaboot yi léegi amuñ jotug di dem ci seeni bokk moo tax xam gi ñu war a xam seeni bokk di des nañu profité ci vacance bi ba kuy seeni bokk ñu mën koo seeti xamanteeg ñoom ba bokk ga ñu mën koo dëgëral léegi nag aw lay jeex na jàng lañ doon wax jàng mi tëj na nañu fexe ba ku ñu war a fexe ba yóbbu ko fa ba mu xamante moom ci ay bokkam nañ ko fa yóbbu ndax jokk bokk dafa bokk ci mbir yi yàlla daf koy laaj boo ëllëgee moo loolu moo gën ñu bàyyi leen rek ci mbedd mi ñuy e, nekk ci loo xam ne du leen amal njëriñ àdduna du leen amal njëriñ ji àllaaxira waaye nag bokk yi li gën a mat a bàyyi xel sax mooy nangay seet ni ñi àndal ci vacance bi nañu xool bu baax ñi gone yi àndal ci vacance bi nañ doon ñoo xam ne ñu leen di dimbale ci jaamu yàlla la ñu leen dimbale ci lu baax la nañ moytu àndandoo safaan bi bu ko defee ñu moytu barab yi nga xam ne barabu fowukaay la moytu itam géej gi ak yemu àndal te gis nañu ci at mii li géej gi def ci xale yi kon yooyu yëpp nañ ko bàyyi bàyyi xel euh, mbokk yi sëriñ Touba nee na ndaw bu ca tollee lu dul ak jub rek ak xam-xam bu mu doon yitteem lu dul ak jub ak xam-xam bu mu doon yitteem na fexe jàng leçon boo xam ne walla matière boo xam ne da caa yëg ne da caa da na fexe balaa vacance bee jeex mu yëg ne dëgër na ci waaye nag na moytu jotaay yi nga xam ne nit yi safaan ñoo fay nekk te man la laa dugal ci safaan mbokk yi xanaa seetluwuñ ne lu baree bari ci xale yi su vacance jeexee danga gis ne am na ci ñoom seeni jikko soppeeku na te la ko def mooy ñañuy àndal te muy ñoo xam ne duñu ñu ñu war a àndal kon yow waxambaane bi fexeel ba fonk sa waxtu ndax nag tey yaa ngi ci digg doole waaye doole ji nag luñ la abal rek la xanaa gisoo ñi la mag xanaa gisoo waajur yeeg maam yi ni ñu néewu doole léegi xamal ne yowit foofu nga jëm de sa xel mi ngi toll ci mën a ga lu bari xoolal sa maam yi li nga xamoon lépp fàtte nañ ko yow foofu nga jëm de gisoo kàttan gi nga am booy dox di wane ne man koo am kàttan la nga xool gis tam meneen koo xam ne aw yat lay doxe foofu nga jëm de bu xamal ne yow it foofu nga jëm bu feeg diir bu gàtt rek noonu ngay mujj mel ni nga ñàkkee jot ni nga amee jot nii léegi tey dootoo ko am léegi tey dootoo am ndax léeg-léeg léegi tey njaboot wër la dépense war la li war sa waajur yi tey léegi ñu war la kon nag bi ngay féex yooyu yëpp nga am ko bu ko def ci caaxaan mukk bul nangu ku la ko def la ci caaxaan na ko def ci jaamu yàlla na ko def ci wut xam-xam jokk bokk gi di seeti ñi feebar ñi néew doole nga di leen dimbale fexe itam ba am métier mu dëgër moo xam ne bu soxla ñëwee nga mën ko caa faj kon bokk yi loolu mooy li ñu dénk ndaw ñi mbokk yi nañu fexe ba sunu njaboot lu ñu man ñu dimbale leen ci ñu jariñoo seen waxtu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su ëllëgee yàlla day taxawal nit ki te bokk na ci lim koy laaj mooy waxtoom fu mu ko defoon waxtoom ana foo ko defoon sa waxtu foo ko defoon ci loo ko defoon sa dund gi ci loo ko defoon te loolu bu yomal xiyaamee balaa nit a jëm fenn loolu bokk na ci yiñ koy laaj waaye itam des na ko laaj nag ak ndawam ci lan la ko jeexaloon doru du laaj alalam fu ko jëlee woon ak fu mu ko def waaye danañ laaj yitam boroom xam-xam bi li mu xam ana lu mu ci def kon mbokk yi nañu xam ne dund gi dafa gàtt lool moo tax balaa moo jàll nañ ci profité def ci lu am njariñ fii ak fañ jëm moo tax am koo xam am yonent bi sallallahu alayhi di waaraate di wax ne nit na góor góorlu ci juróom balaa juróom a ñëw ni ñu ko doon junje sànq am na juróom yoo xam ne nit war na cee góorgóorlu balaa juróom yi ci des di ko topp mooy waxambaane gi nga doon ak màggata ci topp wér gi nga am feebar moo ciy topp koom-koom bi nga am ak ñàkk moo ciy topp féex gi nga féex soxla moo ciy topp waaye nag loolu lépp nag dund gi nga xam ne ci loolu loolu lépp ci loolu la nekk xamal ne dee moo ciy topp kon ñu ngi ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu saxal nu ci njubam taxal nu ci jaamu yàlla sunu waxtu ñu bañ koo sànq sunuy ndaw it sunu borom tàggat leen jëme leen ci loo xam ne dana am njariñ ci seen tund àdduna ak alaxira yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ñu ngi ñaanal borom bi sunu borom ci sunu borom subhaanahu wa taala sunuy kilifa yi diine yàlla sàmm leen te aar leen sëriñ Muntaxa yàlla may ko fan gudd lool te ànd ak wér moo kilifa yi diine yi ne ci réew mi yépp ba kenn ku ci nekk li nga mébét def ci diine ji nga def ko yàgg ñi ngi ko àndal ñëpp waye yàlla sam sunu sam sunu rew na def ci natangé saxal nu ci ak njub doli wërsëg yi xéewali bu baax a baax الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه اما بعد عباد الله اتقوا الله وحافظوا على اوقاتكم واوقات غيركم من الاهل واجعلوا اعماركم موصوله بالخير بعد مماتكم فعن عبد الله بن بشر رضي الله عنه ان اعرابيا قال يا رسول الله من خير الناس قال من طال عمره وحسن عمله معشر المسلمين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن المرء موقوف بين يدي ربه للسؤال عن وقته وعن عمره فقال صلى الله عليه وسلم لا تسول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين من أين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به والعمر الله مهما طال قصير وقد أمن الرسول باغتنامه قبل فواته فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعس اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك واجعل جميع عمري لله ولرسوله وعظم جاهي مد حياتي ذات طول وسعة يا غير مخن قد وهبت توسعة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد سهرتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم وفقنا للاستفادة من أوقاتنا واجعلها عامرة بذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لاستثمارها فيما يرضيك اللهم إنا نسألك العفو والعافية